waaye nag laata loolu dañuy daal dalal suñu bi bile di imam Traoré imam Traoré nag nekk euh, imam ratib bu grand mosquée de euh, l'unité 8 bu Parcelles Assainies waaye itam mu nekk secretaire général de l'union pour le progrès islamique du Sénégal hein donc c'est un plaisir vraiment ñu dalal la ci plateau euh, imam Traoré maa ngi lay wax dalal ak jàmm ci plateau Petit Déj ñu ngi lay ñu ngi rafetlu dallu bi di kontaan ci teewaay bi nga xam ne teew nañ ko fi tey ci émission bi mm-hmm. Mm-hmm. Mhm. voilà mi ngi noonu canal horizon itam ñu ngi may wax ni que ci sponsor yi la bokk jamono ji je pense que képp ku ko amul yaa ngi ci erreur bu mag a mag ndax jamono ji da ngay am déjà chaîne yu leer ak yeneen chaîne yoo xam te ne dafay da tax nga gën a xam lan moo xew ci euh, réew mi alors Mamou. waaw ah. Mamou nan mën naa la Mamou. <laughs> maa la raw madame Mbacke. macha allah ah, yow lay gis naa la yaa ngi tudd mimi comme ça. Hmm. macha allah di la nuyu bu baax a baax. Euh, maamu ci aljuma ci waaw tim tim tim vendredi quoi. tim vendredi dama li ma jaaxal jaaxal mooy avant dama doon xas waa team Vendée naan ne team troisième âge. ah paa yeeg léegi paa yeeg meer yi ñëpp a génn abal ñu bàyyi mu jeunesse bi ñuy daal. Ah. <laughs> gomis benn l'équipe c'est rajeuni moom xam nga màgget la. Hmm. bon Moustapha Diop bu <laughs> ko risque mais teewul. ci troisième dem na. l' léegi. sama nom ba cadet bi xanaa boobu lan la ñuy wax léegi. ah yow moom ma ah, fi mu ne da dañ laa. <laughs> vieux des cadets. <laughs> ay ca maam. la équipe vendredi vraiment waaw kontaan rek bokk ci équipe vendredi bi macha allah di la nuyoo soxna madame Mbacke. Mhm. di nuyoo aussi euh, euh, Serigne Gueye ah. mhm. macha allah moom it di def rubrique bu am solo miroir de l'islam seetu la daal. Mhm. Euh, di nuyoo aussi invité Serigne. Serigne di nuyu aussi sama invité mi nga xamante ne en même temps sama kii la mbokk la mm. xam nga loolu neex na ba ma déggante ak moom téléphone démb daal gannaaw Oustaz Assane ba mu defee coordination bi je me suis rendu compte que ay mbokk lañu mm. loolu xam nga dafa neex ci xol kon maa ngi koy nuyu moom it bu baax a baax di nuyu téléspectateurs yëpp euh, soxna Awa rek euh, tey nag ñu fas yéene waxtaane mono monogamie ak polygamie xam nga mm. coow mi rek awoy <laughs> ah ah, bëgguñu am wujju awoy ah bëgguñu am wujju te ñaari yi aussi bu ñu ñëwee te góor daa manqué <laughs> <laughs> xam naa après daal ci kanam du nañ ko faram fàccee. voilà ci diine wax ci affaire monogamie ak polygamie est-ce que force la nga am bujju nga am kii am plusieurs femmes ou bien mun nga ci yem benn wala sa amaana sa am jabar sa. wala sa nga am benn bu baax rek ndeysaan tee ah, ko rek jàpp sa ñaambur dëkk bi dafa métti ah, te dépasse dafa ah, <laughs> <laughs> mhm. euh, ñu waxtaanee rek miroir de l'islam tey nag nga indi thème bu am solo mu ñeel les services des daara dama lay bàyyi rek oustaz Seni Ndiaye. Mhm. Seni Ndiaye ñu di waxtaanee li nga xam te moom mooy wallu mboolem daara yi. daara Multazam la jiite ca Louga daara jooju nag maa ngi la ko doon wax bi ñuy tàmbali ne. Mhm. Eh, fi mu nekk di daara ji di kër dalwaay bi si boppam moom la boroom kër gi bëgg a jaay waaye loolu nag daf may eh, poser la question Multazam tur bi mu tuddee daara ji. Mhm. imaam Seyni Diagne mhm. Multazam turu daara ji mooy la. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen ndokkeel. ci yor yoru ajjuma bi mhm. leen ndokkeel tam ci émission bii di miroir de l'islam ñaan yàlla mu barkeel ko te yaatal ko xam naa ci tënk rek multasam kalimatu arabiya la baatu arab la mhm. li muy tekki nag mooy lu taqoo ci benn barab mhm. baat bi nag fan la jóge mooy barab bi nekk ci kaaba gi xam mooy bunt bi ci xajarul aswad foofu mooy multasam barab bi dafa taqoog yërmande yàlla taqoog ijaaba ci suñu borom hmm. ba képp ku fa taxaw wala nga wéeru ci place bi wala nga téye ci place bi ñaan yàlla yërmande yàlla jooju dafa taqoog place bi da koy am hmm. ajo boo fa wax yàlla it suñu borom dafa day faj aajo bi hmm. loolu mooy multazam barkeel boobu mu barkeel moom la ñuy tabarruk di ko barkeeloo ñaan yàlla barab bi daara ji képp ku fa dugg yàlla def ci yow leer yàlla def ci yow barke. macha yàlla barke boobu tàbbi ci daara ji. te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. léegi nga sos daara ji. Mm-hmm. kañ nga ko sos ak yow tamit sa jaar-jaar foo jàngee. Mm-hmm. balaa ngay sos daara ji laata ñu ñëw ci daara ji it lan la produire ale mm-hmm. waaw xam naa ci tënk rek. ci tënk rek. ñi nuyu. boroom kër gi di borom daara ji. Mhm. di alxuraan si Lamine Niass dolli ko ñaan yàlla yàlla yokk yërmandeem. Ah, amiin yaa tey bisam la faaw mhm. xel yi dem ci moom ñaanal ko yàlla. Mhm. Eh, nag ñu ngi jàngee alxuraan ndar. ci daara yi Serigne Mor Diop. bu ndar siw na siw na. Eh, moo ñu jàngal fa la ñu defee lépp ci alxuraan. fa lañ ko mokkalee fa lañ ko bindee. fa la ñu defee mbooleem luy maraaxilu tajwid yëpp fa lañ ko defee ci moom. ba ñu fa jógee nag dooro dem nag jàng ji xam-xam. Mhm. jaar ci ay barab yu wuute Kaolack fu nekk jaar nañ fa. macha allah ba wàññi ko nag dooro del si samp daara ji. Mhm. daara ji nag biñ ko sampee ñu ngi ko samp ci atum 2015. Mhm. Euh, ci fële ci suñ dëkk cosaan foofu lañ ko sampe woon. muy dëkk bi ñuy wax Daara Jaañ. Daara Jaañ. foofu lañ juddoo. ah ñu samp loolu rek mu ci région de Louga xanaa. waaw ci région de Louga. macha allah mhm. foofu la daara ji fa lañ ko commencé fa lañ commencé liggéey bi itam. Mhm. Euh, parcours boobu ñu def nag. Mhm. moo ñu yóbbu ba ñu daara ji wëlbati ko dem ba juraat beneen daara. ñu sampalaat ko beneen place ci biir Louga. ci Algérie. quartier Algérie nord. Algérie waaw. kon ci tënk rek daara ji mi ngi sosu ci 2015. ci sunuy loxo ñun ñii. ci ndigalal kilifa yi yàlla dogal itam. am na ñu fay mokkal ak uh, yu ni mel. waaw. Hmm. daara ji bi ñu ko déparé di ci liggéey diiru léggéey bi bi ñu commencé ci diiru juróomi at. Hmm. ndax boo xoolee 2015 ak léegi daanaka. juróom-ñetti at la juróom-ñetti at la. Hmm. ñi ngi toll ci résultat yi nga xam ni suñu borom def na ko fi. limu ñi fa mokkal alxuraan toll nañ ci ñaar fukki nit. macha allah ñoo xam ne dañoo mm. mokkal alxuraan xifzan ala zahril xayb bi macha ñu mm. teel leen ci kanamu ay seede yu wóor alhamdulilah mm-hmm. ah loolu itam noonu lañuy booleek booleeg jàng alxuraan mais noonu lañuy ñuy jànge xam-xam mm-hmm. ci biir daara ji mm-hmm. bokk na ci loolu itam yi nga xam ne mooy résultat daara ji ñi nga xam ni jàng nañ fi alxuraan ba wàcc ko ci diggante ay góor ak jigéen te jotuñu ko sax mokkal ñun yegg nañ ci fanweeri nit ak juróom yoo xam ne ñoom ñëpp wàcc nañ waaye ci diggante ay góor ak jigéen hmm. waaye ñeem a tudd lépp mokkal nañu alxuraan ñoom ci diggante ci jigéen ñi ñoo ëpp jigéen ci jigéen ñi ah? daara ji li fa mokkal ci ay jigéen moo ëppal fi mokkal ci ay góor macha allah ah. Ah. ci ay domaines yu bari ñu wuute nag hmm. ci ay âge yu lu waral loolu jigéen ñi dañ faa ëpp wala waaw xam naa li xew ci jamono rek. Mm. jigéen ñi seen taxawaay yi. Mm-hmm. waaw dafa daanaka foo dem da ngay gis ni jigéen ñi. waaw seen taxawaay dafa gën a keroog bañ kii appareil léegi a neex mm-hmm. dafa gën a <laughs> seen taxawaay dafay gën a fës ci lu bari bari léegi mm-hmm. dafay gën a ràññeeku ci ñoom. ndax dañuy nangoo góor dëgg la euh, jigéen ñi bari nañ fa góor ñu bari nañ fa waaye yàlla dafa dogal dafa mel ni jigéen ñi. ñi fay ëpp mokkal alxuraan jigéen ñi ñoo ëpp. macha allah waaw kon euh, pour wax la rek ci tënk daara ji daara ji yu yàlla barkeel la ndax at yu néew yu xaafis yu toll noonu man faa génn mm. Mm. di fa jàng xam-xam ba mën a jàng ba di fa jàng euh, muxtasar si xalil mm. ci ay jigéen a koy jàng ah ñi fa wàcc alxuraan duñ jeex kooku wax dëgg yàlla suñ borom moo fa def loxo dëgg la dëgg la dëgg la. léegi daluwaay ba ngeen nekk ñu dem ci directement. Mm-hmm. daluwaay ba euh, nu mu fa demee noonu ba mu mel ni lu ma naroon a génn ci seen i dox. waaw léegi eh, ci ci eh, ci gàttal. daara ji yàlla dafa dogal bi ñu sampee daara ji ci fi ma la wax ci dëkku cosaan bi. di liggéey nit ñi di gisee résultat yi. am ñu baree bari ñoo xam dañoo am yéene seen njaboot yegg si waaye dafa xawoon sori ndax dafa ne ci village bi. waaw waaw. te loolu dafay xaw a compliqué. ñu bare bari jot nañoo sax indi seen ay njaboot ñu doon ko tasaare di ko dinkaane ci dëkk bi. Mm-hmm. mais dañoo dem ba loolu xaw a ko poser problème. ñu xam ne il faut ñu jéem a taxawal beneen place boo xam ne ñu dëkkul ci village bi. Mhm. war a jóge Dakar war a jóge feneen te dégg liggéey bi mu ñor leen. Mhm. bëgg nañu fa indi seen ay njaboot. loolu mooy sababu ñu def yitte pour mën a taxawal beneen daara ji. dëgg la moo waral ñu jóge ñu jëlee ko ci village bi indi ko ci biir ville bi. Mhm. ah bi yàlla dogo yàlla dogalee loolu nag ñu ubbi daara ji ci 2022. Euh, 2022 la ñëw. 2022 ah, la ñëw la ñëw biir Louga. Louga waaw ci lañ ko samp. waaye nag bi ñu ñëwee place bi dañ ko loué. bi ñu luyee place bi départ ci liggéey bi. ñuy dem. fa tabaarakallaahu nit ñi jublu place bi ndax gis nañu ni ñu ngi jàngal nit ñi waaye ñu ngi leen di yar yarul islam. maanaam daara bi c'est gratuit wala ñi fay jàng dañuy fay weer bu jot. waaw bu dee ba léegi nekk fële c'est gratuit. Hmm. waaye bii fii. bi nekk village ba. bi nekk ci village ba di Daaru Diagne. waaw c'est gratuit Daaru Diagne moom c'est gratuit. waaye bii dañ ko ubbi. Mhm. spécial pour ñi fa mënta jot si. Mhm. ñu tegal leen mu nekk internet ñu teel leen fa. Mhm. ñu di fa dund. waaw waaw di fa lekk di fa defee lépp. loolu nag ah yàlla dogal ñu dem ba ci biir. kër gi borom kër gi ñu di di ko jaay te. buñ ci deful yitte daara ji dana génn foofu rek. te li gën a sabab menace bi mooy. dafa am ay mbokk mbokk yoo xam ne dañu taxaw jaar ci ginnaaw pour bëgg jënd daara ji te bu ñu mm-hmm. ko jëndee daara ji day génn foofu mm-hmm. ah ndax ñooñu yàlla jox na leen doole mm-hmm. jox na leen wërsëg ñu dem ci boroom kër gi pour bëgg jënd daara ji ba tegal ko xaalis bu bari bari pour bëgg ñu jënd daara ji mais nag yàlla dogal boroom kër gi accepté wul loolu dani comme ñun ñu fi nekkoon doon liggéey ñun ñoo fi jiitu su amee lenn lu muy wax ñun la koy waxal. macha allah su amee lu muy defit ñun la koy defal ba kon moom ak yombal bàyyi ko na ci moom buy wane ne yéen moom yéenay priorité. waaw cest à bu ngeen ñëwee yéen la koy jaay balaa mu koy mu ci mu ci wax ak kenn. balaa mu ci wax ak kenn hmm. defal nañu ndimbal bu rëy rëy. bala ci wax a kenn ndax wane ne ni. Hmm. moom yéeneem mooy su sañoon daara ji du génn ci loxoy daara ji. Hmm. kon loolu ñu ko ci sant di ko ci gërëm. a ah, bi loolu amee itam ñu daat ci taxaw. taxawaay bi ñu ci war a taxaw waxtaanee ko ak ñi séq daara ji foofu. Mhm. ak rabita bi nga xam ne mooy rabitatu madaarisil quraan groupe bi. Mhm. ñu daal di taxaw. fas boobu fa la nekk luga wala ci réew mi yëpp bu réew mi yëpp. waaw mooy rabita bi nga xam ne mooy euh, euh, moo nekk ci biir Louga. Louga mhm. waaye national la. national waaw dafa bokk ci mooy section bu Louga. mooy bu Louga. ci njiital Serigne Jaga Mbay. ñoom ñëpp ñu àndandoo. ñu yëg ni lii dañoo war a taxaw daara ji ndax jafe-jafe dugg na. ñoom ñëpp ñu booloo ànd boole seen loxo ak seen xalaat def ci ay waxtaan def ci ay appel hmm. yépp pour jullit ñi yëg ni lii kat daara moo mën menacé wu ndax bu ñu taxawut hmm. daara ji dana ñàkk place bi hmm. ñu taxaw nag pour loolu yàlla faj ko loolu nag moo sabab ñu woote ko pour jullit ñëpp taxaw ci jàpp ji def ci seen loxo bi ngeen ko woote ak léegi naka la ci jullit yi wala euh, somme bi nga xam ne laajoon nañ leen ko ci ñaata la toll. Mm. ak naka la jullit yi jógee ci euh, ndimbal loolu ak liggéey bu rëy boobu xam ne. Mm-hmm. jëfal yàlla la ci alxuraan. waaw xam nga léegi borom bi ñu waxtaanee. Mm. pour wax la taxawaay bi mu def ak ñun yitte ji ñu war a def ak fulla ji yégal ko jullit ñi. Mm-hmm. borom nit ki dafa ñu ñëw ci moom dafa ñëw xamal ko ni ko barab bi dañ ko bëgg a jënd te xam na nit ñu ngi fiy jàng alxuraan. Mm-hmm. tegal ko 20 millions kaas. pour mu jox leen ko. Mm-hmm. ma leen déedéet. Mm-hmm. ñun waaye ñun yéen bu ngeen amee 16 millions ma jaay ma jox leen kër gi. yéen mu ne leen 16 millions. 16 millions. ca ñu mm-hmm. tegal ko 20 millions yi teew. loolu ndimbal la kooku ndimbal la def kooku jërëjëf waaw lay. kooku ñëpp ñu koy sant. dañ koy fësalit fu ñu mën a dem. alhamdulilah ah ba loolu amee ñu xam ni kon effort jot na. pour ñu yëgal jullit ñi ni leen. alquran ci boppam moo soxla ñu jàppale ko fii. bi ñu wootee mu nekk 16 millions. Mhm. ñu woote ko yàlla dogal it jullit ñi wax dëgg yàlla dégg woote bi. Mhm. wuy si ci. ca Louga foofu ca foofu ca Louga. Mhm. def nañ appel bi. Euh, defe def collecte bi. jullit ñu ci bare bare bari yëpp ko jiital ci seen doole def ci seen xalaat def ci waaye def ci seen am-am. tàmbali tàmbali nañ ko. ba mbir mi toll ci 5 euh, million am nañ ba jëlee 5 millions itam borom kër gi ñu dem ba si moom. ñaan ko mu nangul ñu ko mu nangul ñu ko jël itam. Hmm. comme avance comme avance. Hmm. mu jël ko comme avance. macha allah euh, muy muy ndimbal bu rëyat ci loolu. mu des nag 11 millions yoo xam ni moom lañu war a def yitte. Hmm. pour mu mat ci lu mu gën a gaawee. daara ji mën a jot ay caabi moom boppam mën a libre total pour liggéey. élan de solidarité boobu ci rabita bi rek ngeen ko yemale woon wala dangeen ko jaarale ci ay médias yu mel ni réseaux sociaux yi walla rajo yi wala leneen ak leneen wala nu ngeen ko doxalee daal ba. ñi ko sonn yëg sax yëgaale ko. waaw euh, liñ ci daan bi ñu ko jëlee. Hmm. dañu ko tasaare ci mboole média yi tasaare ko ci réseaux sociaux yi. Hmm. jaarale nañ ko walfu. Hmm. jaarale nañ ko yeneen télé. walfu fii wala walfu fii waaw. Ah, jaarale nañ ko walfu. pour jullit ñëpp yëg ko. yëg ko macha allah. nañ koy ci yeneen média. pour jullit ñi jot ci. jaarale nañ ko ci réseaux sociaux yi. tasaare ko. Ah, bi loolu amee itam wax dëgg yàlla jullit ñi. ñu bëgg yiw lañu wuy si nañ ci bu baax a baax a baax a baax loolu nag moo indi some bi yéeg ba cinq millions ba cinq millions léegi nag mu des dafa des dafa des moom mu des onze millions des na de onze yooyu mu xaajagul sax waaw kon xaajagul <laughs> kon loolu mu des nag moo waral xam naa ngeen may nu waaw euh, opportunité ak possibilité pour ñu mm-hmm. mën toog fii mm-hmm. waxtaane ak jullit ñëpp mm-hmm. waxtaan itam ak soppe yi Walf yépp nag ak soppe yi alxuraan yi ñoom ñëpp lañ ciy woo. léegi àdduna moom ñu ngi seetaan. Mm-hmm. te nit ñi ñu bëgg alxuraan lañ. Mm-hmm. te it liggéeyal yàlla fi mu xam naa ne lu ci weesu jëfal yàlla ci alxuraan jaare ko ci alxuraan euh, wax dëgg yàlla. weesatu ko. Mm-hmm. fan lañ mën a jaar ba indi leen ko yaakaar naa say numéro mu ngi nii. waaw mën nañu jaar ci numéro yi. mën nañu jaar ci numéro yi euh, liñ ciy jëkk a wax loolu Serigne Sëñ Gueye. Mm. mooy. xam naa fa tabaarakallaahu sëñ sëñ ah sëñ Seydi Lamine Niass mi ñuy waxtaane tey tey ji bu fi nekkoon bu fi nekkoon waaw man naa am du sax toog fii di wax damay jekk damay damay jóge fële rek ñëw waaw fexe ba jël audience gis ko wax kaw moom xamal ko ne ko daara ji lii lay liggéey lii mooy résultat daara ji mhm. diiru juróom-ñaari at Mm-hmm. liggéey na fi liggéey bu toll nii waaw diir mm-hmm. juróom-ñaari at mm-hmm. wàccee na fi alxuraan ci lim bu toll nii mokkaloo na alxuraan ci lim bu toll nii te ñu ngi jàng xam-xam te diiru li ma la wax noonu ñu diir bu gàtt boobu ci résultat yi daara ji am na ci ñett jigéen ñoo xam ne jàng nañ fi alxuraan ba jàng fi xam-xam ba fii ne tey loolu dem nañ Dakar ñu ngi ay jàngalekat lañ. ay jàngalekat macha allah te ci daara ji lañ formé ci lañ defaroo. pour war la ne la barab bi barab la boo xam ni. Mhm. jullit ñi war nañoo taxaw. Mhm. pour jàppale ñu si li ñuy woote ndax yiw la. Mhm. yiw la macha allah ah, kon. woote bi mooy. comme ni nga ko waxee képp koo xam ne si da nga cee bëgg a wuy si.

85 53. ak ci mboolem yónneekaay xaalis mboolem yónneekaayu xaalis yi. Mm-hmm. foo ci war a jaare foo ci jaare rek. Mm-hmm. incha allah boo ko dugalee dana egsi ci ñun direct. macha allah ndax mboolem li jullit ñi parce que ci numéro yooyu lañ ko jaaree. Mm-hmm. te jot nañ ko. dinañu ko fàttaliwaat léegi numéro bi. waaye dama bëggoon a wax rek ci surtout euh, concours alquran yi concours njàngum alquran yi nga xam ne mu ngi am ci réew mi gis nañ ci bu mel ni bu Sénico. Euh, yaakaar naa ci at yu ñu weesu daara soxna Awa Cissé Louga googu la nekk te soxna di xale bu jigéen sax moo jëloon raaya bi at moom tey ji nga waxaat fi ne xale yi jigéen yi tamit ñu hmm. ëpp ñu mokkal ci daara multazam boobu hmm. yéen ndax yéen a ngi participer ci concours yooyu ak euh, ak ak yu ni mel waaw muy laaj bu am solo hmm. daara ji comme ni ma la waxee mbooleem branche yi daara di jaar rek da ci jaar da ciy jaar dëgg ndax ni muy jàngale alxuraan xale bi di ko mokkal noonu la koy jàngale ilmu tajwid ñun dañuy bokk ci concours Senico yi. Mhm. sunuy njaboot dañ ciy bokk sunuy donge dañ ciy bokk. Mhm. waaye xam nga loolu ay éliminatoire lay doon waaye pour wax la ñun ñu ngi ci. Mhm. ci foofu nag la ñuy profité woo. di ci woo bu baax a baax suñu mbokk Serigne Abdoulaye Dia. ku baax la. waaw ay terangaam du jóge ci sunuy daara. lii nag feebaru daara la. daara moo am yitte ju ni këtt ni jot na ci kaw te ñëpp la war a yitteel waaye Serigne Abdoulaye Dia dafa nekk ko spécial ci daara. yàlla da koo xiir ci daara waaye alal mit ci yiw rek la koy def ci liggéey lu am solo rawati ñun ñi yor daara xam nañ jëfam dëgg la ndax gis nañ ko gisati ko ñoom sax ñoo sponsorisé émission bi ko mooy alib meew alib bi waaw kon kon moom mm. comme ñoo sponsorisé mbir mi mm. sëñ Abdoulaye Dieng ñu ngi koy jottali ni ko daara ji barab bi dañ ko war a jënd mm. sëñ Omar Seck nga lay dégg sëñ Omar sekk kon ñu ngi koy ñaan mu jot li ñu sëñ Abdoulaye ni xaaju bi dañ ko bëgg a faj nu soxla la boo xam ne wax dëgg yàlla. bu mhm. fajuwul. Mhm. bu ëllëgee donga yi mën nañoo. non incha allah jóge foofu dina faju incha allah mu indi loo xam ne si day indi ay complications ndax koñ bi ak la ko wër tey. Mhm. ñu ci bare bari seen ay njaboot ña nga fa. te loolu nag bu fa tuxoo rek. Mm. day yàq ci yar bu baree bari ci ñu fa doon. Mm-hmm. kon kon nag kon oustaz Seyni xanaa ma fàttalee rek numéro yi. ñu mm-hmm. tàggatoo ba beneen yoon. ku ma bëgg a jàppale kon daara multazam multazam boobu. Mm-hmm. wooteel wala nga envoyé la ngay yónnee. ci numéro yii di 77 550 537 92 83 537 92 83. wala 76 179 85 53. dimbalee ko alxuraan defal yàlla. te yàlla rek a tax mm. mi ngi noonu ah. am na solo ñu jaajëfal sëriñ. Mm. bàyyi xel itam vraiment taxawaay bi nga xam te ne su daara yi am nañ ko. am na ay bonne volonté ñi ngi fii di déglu euh, li nga xam te moom nga nekk di wax. te gëm naa ni lii incha allah nañ ci dugal seen loxo bu baax a baax. on espère dina gën a saawaan baawaan ba ful ba nga xamante ni. da ngeen ci am sax lu kawe sa njot incha allah merci beaucoup tuddoo barke boobu yàlla voilà fekk mm. si leen ci li nga xam te moom mooy li ngeen di sàkku jamono ji waaw waaw ñu tëjee foofu bu ñu duggee ci daara ji fii kon dañ fiy fekk suñuy mbokki daara ak suñuy magi sëriñ daara mm-hmm. muy al oustaz Hady Niass mm-hmm. di borom daara di sëriñu daara waaw oustaz Assane Diouf oustaz Assane Diouf waaw oustaz Assane Diouf Cheikh Bara Ndiaye mm-hmm. ñooñu ay magi daara lañu di ay boroomi daara ah ñu leen xamal ni nag seen mbokkum daara moo ñëw tey ci ëtt bi. Mhm. di woote ci loo xam ne si soxla si daara ji la. macha mhm. allah Sey Moustapha Diop muy directeur. Mhm. ñu bokk ak moom Louga. muy sunu mbokkum Ndiamb. Cheikh Niass. Serigne Cheikh Niass Cheikh Tidiane. moom tamit ñoom ñëpp wax fu bu walfu. ñu ngi leen di tàllal loxo. incha allah ñu leen daal xaaju bii ñu indi ci ëtt walfu bi. ci bisub Sidi Lamine Niass bi. suñu sañoon bala ñoo am semaine. ñu célébrer ni mbir mi mat na jël caabi. jël lépp jox borom mm. borom jël caabi yi jox mm. alxuraan alxuraan am liberté foofu liggéey li mu bëgg a liggéey mm. ñuy sant bu baax soxna si di sant Serigne Gueye jërëjëf tabaarakallaa di bu baax Omar Kéré moom jàpp na ci liggéey bu baax a baax ca Louga Louga ñu koy sant lépp ci loxoom euh, bu baax a baax on espère que yëf bu baax a baax yow la beneen àjjuma ci beneen miroir de mi ngi noonu donc mi mel ni gis-gis la ñuy jëli léegi léegi alors gis-gis tey Mamour dafa ñëw indi thème bu doy waar ah, wax <laughs> war a waxtaanee